maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man la soxna Awa Diop Mbacke euh, coordinatrice su BADEA bureau d'assistance aux daara et aux diplômés de l'enseignement arabe waaw nekk ministre conseil waaw waaw xam nga cérémonie bi moom cérémonie euh, ñaari aspect la am ndax dañoo woote di jàng alxuraan ne dañuy ñaanal way dawlu yi newaat dañuy jàng alxuraan ñaanal réew mi ñaanal àdduna bi ak yi fi xew yëpp kon nag mënuma ci am lu dul euh, sentiment ñaan euh, boo xam ne daal yég naa ni tey fii moom jàng nañ fi alxuraan ju sell euh, bi ma ñëwee fekk naa ñu jàng alxuraan ji sama ginnaaw mais fekk naa fekkee naa xet xatmu bi donc nag xam naa ne ki ko doon jàng tamit ak kàngam yi mu toogaloon ñoom ñëpp daal ay afisu alxuraan lañu waaw kon nag li nga xam ne moom lañ fi jàng tey ñaanal ko way dawlu yi yàlla na leen fekk ci àjjanay firdaws yàlla na firdaws nekk seen kër yàlla xare leen àjjana te ñun ñi fi des tamit yàlla bàyyi ñu fi wéral ñu kattanal ñu eh, may Sénégal jàmm tamit waaw may ko jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj mm. may ko tam àdduna bi ñaanal Palestine ñaanal Ukraine ñaanal fépp foo xam ne rek àdduna baa ngi fay yëngu ñu fasaale ko ci alxuraan ji parce que wax naa ko léegi nee naa benn allahu milliard mënu ko fay kon nag alxuraan ji ñu fi jàng lu ci waay dugal rek xaj na ci kon yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw bisimilah rahmaani rahiim daje bi li tax ñu woote ko tey mooy euh, dañu nekk ci parti nekk ci ab coalition pendant des années ñaari at yi passé am lu fi jàll muy Covid 19 bari ñu mbokk yoo xam ne ci loolu la leen yàlla jëlee seen bakkan dañu daan ànd di toog di waxtaan di partager lu bare bare bare bare ci àdduna. ñu gis na tey jiitu nañ ñu ñu xam ne des amul dara lu ñu leen deseel lu dul ñun ñëpp ñu daje comme ay doomu daara lañ jàng li gën a fort ci ñun mooy alxuraanul karim woo nit ñi gën a euh, joxe seen temps ci loolu ñu ànd ñu ñëpp yenn fi tey ñaaneel leen yàlla jàng nañ fi vraiment ay téeméeri téeméeri kaamil euh, ci njiital imaam Mouhamed Niass euh, tey ñu ñëw aussi def fi ñaan yoo xam ne yaakaar naa ci kanam ñëpp la di ñaan yàlla. yàlla yool boobu mu jottali ko suñu mbokk yooyu nga xam ne ñoo ñoo ngi ñooma bokkoon daan nekk ci couloir yi di dugg ak génn di bokk ay réunion guddeeg bëccëg waaye itam dañ koo def itam pour dafa am daje bi tamit dafa am benn valeur pédagogique mooy dañu bëgg a wax aussi suñu om politique yi wala képp koo xam ne rek doomu aadama nga surtout ci jamono ji ñu toll nga xam ne valeur yi macha allah mi ngi ci suuf jikko yi eh, rafet yi abandonné nañ ko waxante lu ñaaw a fi nekk ak defante lu ñaaw euh, ñu bëgg leen a fàttali ne incha allahu taala dee bis la boo xam ne dafay ñëw ñu ñëpp danañ ci jaar ñu bëgg leen a fàttali ne dañoo war a dellu siwaat xam ne fii li fi nekk yëpp dafay jeex nguur dafay jeex bu la yàlla bu la yàlla dogalee yow ci biir lu toll ni fukki million ak juróom ñaar ñu tànn la ci dénk la ay responsabilité lan ca war da nga koo dem muy jubal Euh, la ca la war def da nga ko def muy respecté doomu aadama yi la ca war itam ci euh, kóllëre gi nga xam ne séqoon nga ko ak ñi nga xam ne lu gannaaw yàlla we bu gannaaw yàlla weesoo boo faloo ñoom ñoo la faloon ñu leen di bàyyi xel mooy les militants loolu c'est très important ndax li leen jox dañ dénkaane la ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci opposition bi ñu xam ne pouvoir itam buñ ko dañ koy wut ci façon bu rafet ndax lépp loo xam ne tabax kër goo tabax te tabaxooku ci mool yu dëgër buy daanu ci sa kaw daf lay bett nekk opposition wala nga nekk pouvoir moo ci yem ay valeur ak ay jikko yu rafet ñëpp ko war a adopté boo wut pouvoir wut ko ci façon bu rafet waaye bu la ko yàlla joxee itam na nga ko na nga ci façon bu gën a rafet su ko defee Sénégal doon suñu Sénégal ñu ñëpp euh, yàlla mooy fal doomu aadama yi ay wasila rek lañu pour fal waaye yàlla moom mooy fal te yàlla pare na ki fi yàlla teg ñu ànd ñu ñëpp jàppale ko nekk ci gannaawam ba li nga xam ne moo taxoon ñu fal ko mu mën koo def bis bu ñu eggee ci nag eh, ne nguuram yàlla jeexal na ko bu boobaa incha allahu taala yàlla mooy def eh, keneen koo xam ne moom ca na na mu mel mm, yàlla moo koy waajal incha allah ñu jox ko réew mi waaye lépp mu ànd ci yar mu nekk ci yar ak teggin ànd ci nekk ci kàddu yu rafet ci doxalin bu rafet bàyyi saagante bi bàyyi waxante lu ñaaw bàyyi dikk nit ñi loo xam ne aussi wóor na ne lii mënuloo ko wax lu ñaaw pour accéder au pouvoir loolu l'islam def ko tere waaye nekk ci pouvoir itam di wax naka su noonu ngir bëgg a maintenir au pouvoir itam loolu l'islam ko tere donc ñun suñu mission mooy loolu loolu lañ bëggoon a passer encore ci population yi ñu xam ko à travers euh, la presse pour que sénégalais yëpp xam ne ñun dañoo taxaw incha allah taala pour dugal suñu loxo ci liy defar suñu réew te façon bi nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo gën mooy ñuy daje li ñu yàlla dénk ñu ciy ñaan di sant ñëpp di leen gërëm. waaw parce que weeru koor day weeru de di weeru njégal di weeru ngore ngore gore gore ci safara euh, muy lu yomb fan fukki fan yu mujj yi yaakaar naa ne borom xam-xam yi waaraate ko dégg ngeen ni ñu ci wax kon nag buñ ci dajee pour ñaanal suñu mbokk yi ñuy jiitu ñu jàpp nañ ne loolu moom tànneef la goo xam ne mënuñu woon a am tànneef ku ko gën a baax